turu sëriñ Abou Moussa Mamadou Fadal di nuyu kenn bàyyiwul kenn ñu di leen nuyu tur Serigne Cheikh moom Serigne Saliou ak yow Saliou gépp ak njabootu Serigne Saliou gépp nuyu sama xarit mu Serigne Moussa Moussa Mbacké mi nuyu xaritam Serigne Moustapha Mbacké mu Serigne Abdou Lakram nuyu sama mbokk di nuyu mbokkam di sama mbokkum taalibe di mbokkum taalibeem def naa noo noo bokk fu ñu jëm nee da jàpp na ne ñoo bokk fu ñu jëm ak Serigne Modou Mbacké ak Serigne Modou Mbacké Abdou Latif Serigne bi la ñuy xëy nee ci Serigne bi rek la ñuy xëy ci gont ci Serigne bi rek la ñuy jàng ci la jàng ci la ñuy jàng itam xel koom bi nag nee xel koom bi nag alhamdulilah rabbil alamin Serigne Moustapha defe naa fii de defe naa mën naa de. defe naa fii de de. ndax bi sëñ Saliou joxee sëñ Modou liggéey bi. ne ba sëñ Saliou njëkkee woote liggéey bi te joxoon ko sëñ Modou mu nekk jëwriñ ja. góor bu njëkk ba. man mii man mii la sëñ bi joxoon ndigal la ma ma ànd ak njabootu sëñ Fallou. ma ànd ak sëñ Fallou gi. taxaw góor ba woote liggéey boobee ñu taxawu ko. boo fi àll boo fi booba. fii àll na lool. amul dal amul dal. amul baas amul dara boo ko def ba jant so nga fàkk la jant so nga fàkk fa muy fii tey suba xëy rek tàmbali waat foofa waaye sëñ Tuubaa ku liggéey ku ne waaye sëñ Tuubaa kuy liggéeyal nga xel koom bi ne xel koom bi ku fi ñàkk ku ne ku fi ñàkk ku ne saw ñàkk du réer saw ñàkk du réer ko jëriñoo tey da nga ko ko àllaaxira ga ñu mujj ndax bi sant dongo yi ndax bi yi ak bokk yi bokk yi xel koom ci liggéeyu xel koom bëgg alal taxut bëgg alal rek taxut woon bëgg bëgg ñàkk ñu ñàkkal bëgg rek taxoon loolu la bëggoon rek la bëggoon defe naa loolu am na defe naa loolu am na kon nag alhamdulilah rabbil alamin deqi nañu fi fi góob nañu fi Euh, dégg ñu ak din nañ fi nañ fi def nañ fi lu ne alhamdulilah rek rabbil alamin sant nañ fi teew noo fi nekkal ne mii mbégte moo xam la te wóor na mbégum sëñ Saliou wa te wóor na nu mbégum sëñ Saliou mooy mbégum sëriñ Touba mm. kon alhamdulilah rabbil alamin kon nag alhamdulilah xel koom képp ku yow xel koom na nga wax sëñ na nga wax sëñ Mountakha ndax moom euh, la goo ne waxtu bu waxtu bu nekk boo déggee kàddoom rek bu dee boo déggee kàddoom rek sa pas-pas sëriñ Touba dana yeesaat man waxtu bu nekk waxtu bu nekk maa ngi koy déglu maa ngi koy déglu di ak bëccëg barke dem bi dafa wax nit yàlla am na solo lool nit yàlla am na solo lool waaye noonu waaye noonu nan nekk di di sëriñ rek moo gën a wóor moo gën a wóor <laughs> ah loolu moo gën a wóor ndax sëriñ Touba ñëwul kenn ñëwul kenn ku yàlla bind ku yàlla bind sëriñ Touba ñëw ci boromam loolu wax ne loolu la sëriñ Mountakha loolu muy dëgg ne tool rek kay dëgg itam dafa am yoo xam dafa am yoo xam sañ a sañ a <laughs> malaayka yëbu ko malaayka yëbu ko yontu yëbu ko yontu yi ma yëbuñu ko moo ko wax de ne moo ko wax de te loolu mooy dëgg te loolu lay dëgg nag mm-hmm. kon nag sëñ Fall daan wax naan kii nu am kii nu am muy sëñ Touba kenn amu ko muy sëñ Touba muy sëñ Touba rek sant yàlla kon nan sant yàlla sant yàlla sant yàlla góorgóorlu góorgóorlu taalibe taalibe fas yéene suñu laxasaay yi fas yéene suñu laxasaay yi balaa teqale ko balaa teqale ko ñu dem ci bàmmeel rek asalaamaaleykum amin amin